ok maa ngi nuyu ñëpp euh, tey euh, lu ma bëgg a wax moo nekk about euh, Bob Keita bii nii man xawma ko te foog naa suma moroom bari na ñoo xam ne xamuñ ko waaye dañ gis ne laaj ne ah comme injustice boo xam ne loolu la ko gars yi bëgg a def soo ñu bëgg a loolu mu stop to be honest man dama kontaan si Gambien yi trop tey because of luñ def xam nga so man lu ma mënta understand lu tax Gambia suñ la su kuñ teg place rek da nga dee a abuse office boobu noonu di jaay doole ne man lu ma neex lay def is it that suñ président bi moom moo fitut fa nekka président o oh, moom moo bàyyi gaay la lu leen neex ñu def like corruption free ku ni ku nekk lu la neex rek nga def lii moo war a stop gis nga maan bi nii youth man bi free leen ko booy two years is too much dafa xam nga yéen a ngi bugg a destroy youth man bi ah yéen a fi youth empowerment youth empowerment youth man yi nekk di ngeen bugg a destroy gaay lu xew waaye ñu bàyyi fi doomu yi meen ñu bàyyi youth man bi mu free man ah kees nii kees boo xam ne la sax man mënumaa understand so bon su doon Bob Keita moom moo tëj xale bi ci biir moto bi ba lii xew ni ko doon fu mu nekk nañ ko bon so for now right now lu gaay war a xalaat moo nekkat xale bi xale bi lan moo ko rey lii moo war a nekkat the main thing right now lii moo gën a merloo Gambian yi tamit moo tax ñu génn so nañ bàyyi youth man bi ñu free te maa ngi wax li Gambia yu na wax li pro yuut yeb ñu dégal li ku wax né li du suma affaire ding ko si kanam because after Bob keta it could be you it could be me it could be anybody so nañ taxaw ñu fight rubbish yu nekk di dox si dekk bi nañ ko stop Gambia is for all So nekké place nang ko tiyé ni mën nga fa